li tax journée bi nag gën a am solo mooy fexe na ne ba dugal seen programme activité de don de sang ku wax activité don de sang di nga wax prise en charge des urgences dans les hôpitaux département Tivaouane bi yëpp banque de sang bu hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh moo leen di jox des poches de sang moo xam nga nekk centre de santé yi moo xam nga jóge Mékhé moo xam nga nekk dans des cliniques privées yëpp yëpp ci banque de sang wu hôpital bi moom la jóge ba tax na ay nit suñu fexee ba boole loolu seen activité mënul lu dul sant leen gërëm leen ci benn ñaareel ba ñuy fàttali itam toujours ni su banque de sang bi taxawee ci ndigalu sëñ Abdoul Aziz Al Amin la kooku jar nay fàttali 2015 moo si joxe woon ndigal ñu fexe ba Tiwaawan fexe ba taxawal activité de don le sang tey nag ñi ko soxla bari nañu les femmes qui accouchent jigéen ñiy wasin ñi am traitement chimiothérapie cancer dañ koy soxla ñiy def dialyse am insuffisance rénale dañ koy soxla ñii am accident de la route dañ koy soxla ñi ni opéré au bloc moo xam prostate moo xam opération orthopédie ñi ñëpp koy soxla donc amul koo xamee ni que doo ko soxla wala sa mbokk mu daal soxla donc lii lu jar di pérenniser la lu jar di vulgariser la lu jar di woo nit ñi pour ñu siy dugal seen loxo moo tax ñun tamit tànkaluñu benn yoon donte metti na tey jii ñëpp xam na ni li xew fii ci hôpital bi waaye lii dafa nekk farata boo xam ni que mën na ko bàyyi gannaaw activité bi nag ça réussi à 100 pour cent benn enseignants yi ak corps encadrement bi nin siy jàppee moo tax mu réussir ñaareel ba yar ak teggin yu ni seen ci xale yi fiy jànge daan ñëw ànd ak yar ànd ak dal ànd ak teggin ànd ak kersa itam loolu tamit ñu koy santé ñi leen di encadré ba nga xam ne que qualité ressources humaines yi fiy génnee ñëpp xam ne que qualité bu baax la encore une fois daal nous sommes à votre disposition saa bu ngeen soxla ak li ngeen bëggati rek incha allah dinañ si taxaw pour répondre à votre attente loolu daal moo nekkoon kàddu yi di leen sant yéen waa presse bi Tivaouane amul presse locale ndax une ville internationale lu mu génn rek ñëpp a koy diir yàlla ñi doon ñi am ay rajo yal na doon ay kii ay télé ñi doon ay chaîne aussi internet yàlla joxe aussi nekk ay télé yu mag ba ñëpp leen déglu fi ci adduna bi lii daal moo doon kàddu yi mën Mm-hmm. encore une fois merci beaucoup. Mm-hmm. une dernière question fan yii si ginnaaw dañu gis ne banque de sang yi surtout centre bi nga xam ne moo nekk Dakar. Mm-hmm. doon alerte ni banque de sang yi dafa dafa manqué léegi fii ci département bi comme ni nga ko waxee Tivaouane moom mooy service département bi ba léegi ban appel de sensibilisation nga mën a lancer ñi nga xam te ne ñoom collectif euh, yi organiser ay ay pour yu mel nii ak élèves yeeg ak population bi pour ki kilifa ba bu toll na sëñ Abdoul Aziz Al Amin radiyallahu anhu bu joxee ndigal ci nanu taxawal banque de sang ça je le rappelle toujours képp ku nekk ci département bi war nga bàyyi loolu xel moo xam les instituts de formation la moo xam les industries implantées dans le département la te am na sax ñoo xam ne chaque année daan organiser fréquemment ay dons de sang moo xam le corps médicale les différents postes de santé yi mën nañu organiser ci seen comité de gestion yi comme y a 47 de santé dans le département mën nañu di organiser fréquemment pour que les demandes à sang soient satisfaites entièrement dans le département encore une fois daal ñoo ngi lancé appel mm-hmm. képp koo xam ne daal yaa ngi bokk ci daayira yaa ngi bokk bi ci mouvement ñoo ngi ñaan ngay fi sa gox nga organiser lu mel nii ñu bañ xaar rek ba sa mbokk tëdd rek nga soogaa di di jóg ni demee def don familial soo jógoon avant dañuy jël rek dimbalee ko loolu mu daal di sauvé waaye nga xaar ba mu tëdd rek nga ni maa ngi jóg def activité bi baax na waaye ñu defe ko nii moo gën bu ñuy wax banque de sang ñu denc fa sang moo tax banque de sang dafa war am sang fa denc waaye waaye bu ñu xaar rek ba sang bi jeex ñu soogaa di di jóg n'est-ce beneen bi si des mooy itam ñu ñu xam ne que nag euh, nag kilifa yi gën a dugal surtout les kilifa politique gën a dugal seen loxo ci lii lii nag euh, day wane ne rek sunu hôpital tamit am na beneen image bu bokkul ak bin jox fan yi beneen image boo xam ne que c'est un hôpital qui est auprès de sa population ndax liñ fi def nii yëpp pour population bi la xam na ne am na yeneen activité yoo xam ne que lépp lu fa mën a def rek c'est pour la population lii nii en un exemple concret encore une fois on toujours d'être au chevet des populations ndax moon fi tax moon fi tax a toog moon fi tax a ñëw di santaat bu baax les organisateurs rawatina Moudir ak Imam Dramé rawatina euh, Abdoul Aziz Lo moo xam ne que moom yitte bi mu ko jox man sax yéem na ma encore une fois daal fàtte naa ko léegi sëñ Abbas yoxe woon ndigal moo tax lii kenn mën ko cof tax mu def ko moo ko xam xale yi seen yar ak seen teggin yëm na ma ak seen dal waaw ñu ñaanal yàlla mottali seen ndaw ba lu ñuy séntu ci ñoom yàlla jox na lu ëpp seen njort kàddu yooyu daal moom la na bëggoon euh, saafoon teg te saa bi ngeen soxlaa rek nous sommes prêts à répondre à votre appel parce que nous sommes au chevet des populations ak lu mën a em lu mën a xew nous sommes là pour les populations ndax sans jóge ne fii dem ba Dakar sauver ay nit jóge ne fii dem ba Ndar sauver ay nit waxutuma nag ñu nekk ci département bi jóge Mexe jóge feneen waaw te tey kenn xaarul woon sax lii am waaye dafa nekk loo xam ne kenn mënul koo wan gannaaw ñu ñaan yàlla rek yàlla gën leen taxaw gënu taxaw ñun itam ba sunu mission ñu gën ko ñoŋal yooyu daal bu nekkoon kàddu yi wasalaamaaleykum